ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yeggale insha allah taala ci ubbi gi nga xamante ne moom lañ doon ubbil euh, asmaullah al xusna wa sifatul ula surtout asma al xusna euh, ak li nga xamante ne moom moo ci aju ak maanaam mooy tur yàlla yi yi nga xamante ne ñoom ñooy tur yi nga xam ne ñoo yi gën a rafet ci tur yi euh, kon bi jotaay bi weesu gisoon nañu yenn ci ay Euh, teqantal ci li aju ci euh, zikar tur yàlla yi ak euh, ndigal li muy laaj léeg-léeg ak lu koy waral ak yu mel noonu ba gisoon nañu màggaay borom bi subhaanahu wa taala ak teqali gi nga xamante ne moom la borom maanaam moom la turu yàlla yi ko teqali ko gi nga xamante ne moom la teqali ko ci ay tur yoo xamante ne ñoom turu jalaal lañ ak tur yi nga xamante ne turu jamaal lañ foofu lañ tolloon maanaam muy asmaul euh, euh, jal jalaal ak asmaul jalaal ak asmaul jamaal maanaam euh, ci teqantal googu loolu moo tax ñu ne woon am na beneen teqantal maanaam mooy ne dafa am d'abord lu ñu wax asmaul zaatiya mm-hmm. mooy tur yi nga xamante ne ñoom zaatiya lañ moom asma yi nga xamante ne maanaam mooy zaatiya moom mooy tur yi nga xamante ne tur yàlla yi nga xam ne ci nekk-nekk borom bi ci boppam la tur yooyu di dellu maanaam mooy day dellu ci euh, essence su borom bi si boppam subhaanahu wa mu am tur yi nga xamante ne asmaa'un nafsiyya lañ leen di wax maanaam mooy tur yi nga xamante ne dañoo dellu ci borom bi subhaanahu wa taala euh, ci kamu doon maanaam son son maître wala voilà euh, voilà son moi son son moi son maître voilà maanaam du du rek essence bi kese mais dafa dellu ci. maanaam moom tey bu bu nekkee ku ñu mën a eh, xalam ci xel maanaam ni mu ngoog léegi nag dafa am tur yoo xamante ne tur yooyu dañuy aju ci moom mu euh, am asmaa yi nga xamante ne euh, mooy yu jalaal yi ak yu jamaal yi mën nañ ko wut beneen teqantal te mooy asmaa wu sifaati ya ak asmaa ak feeli ya voilà maanaam euh, sifaati ya moom mooy tur yi nga xamante ne tur yu melo lañ ak tur yi nga xamante ne fi'liya lañ manam moy yu jëf yi lañ waxon nañ ne tour yi nga xamantene ñom ñoy tour nek nek moy yi nga xam dañu aju ci zatam manam nek nek moom borom bi subhanahu wa taala tour yoyu bokku na ci tour yi nga xam ne moom euh gisoon nañ ne allahu la ak al haqq ak al ahad mais il faut ñu bàyyi xel benn affaire yooyu yii ñuy wax ni moom mooy asmaa u ijaab parce que en fait tur yàlla yi dafa am ñaari catégorie ñaari catégorie yoo xamante ne ñun ci benn bi catégorie bi lañ ne catégorie bu njëkk bi moom mooy lu ñu tuddee as as asmaa u salbi dañoo koy asmaa u salbiya maanaam mooy tur yi nga xamante ne dañuy dañuy dàq yooyu ñoom ay tur yooyu yëpp zaate lañ maanaam dañoo lëkkaloo dañuy delluwaat tur yooyu dañuy delluwaat ci nekk nekk borom bi subhaanahu wa mooy comme lan mooy. comme naan wa maa kaana rabbuka nasiya sa borom nekkul mukk kuy fàtte le fait yàlla du fàtte comme laa ta'xuzuhu sinatun wa laa nawm kooku noonu loolu dafay dellu loolu tur lay wax bu turu yàlla la boo xamante ne salbiya la maanaam dafay dàq maanaam ne day dafa am benn kii négatif maanaam euh, forme négative ci ci ci expression bi buy wane ne yàlla kenn mënu ko askane la lii lii dafa dàq ci borom wa maa kaana rabbuka bi zallaamin lil abid yàlla du nekk mukk di tooñ jaam maanaam ñàkk a mën a tooñ loolu tur melo yàlla la ak tur yàlla la boo xam ne salbi la yooyu ak euh, comme par exemple lam yalid jur kenn loolu salbi la ak walam yulad kenn juru ko kooku euh, wa salbi la walam yakun lahu kufuwan nawle loolu salbi la maanaam mooy day day dàq dafay wane ne day am lu muy dàqal borom subhaanahu wa yooyu yëpp nag.

imperfection yooyu mënul nekk ci moom léegi euh, asma ijaab yi yi nga xamante ne ci lañ ne maanaam moom lañ ñoom ñoo tàqali ko ci ñeenti catégorie yi nga xamante ne moom lañ wax ñoom ñoo tàqali ko ci ñeenti catégorie yi nga xam ne léegi kon waxoon nañ ne euh, asma u zaati yi maanaam tur yi nga xam day dellu ci essence bu borom subhaanahu ci nekk-nekkam mooy allahu yàlla mooy mooy allahu turam bi ci boppam a al ahadu al ahadu mooy kenn ki tey tey lenn kenn kii lenn ak alxaq alxaq mooy dëgg gi gi sax nga xam ne moom rek moo fi masa nekk di dëgg te lépp lu dul moom neen la te lépp lu lu mu lu mu bokkut loola baax loola neen la voilà maanaam yooyu ak tamit yi nga xamante ne ñoom euh, ay damir lañ ah, comme huwa moom ana man taa ul muxaatab maanaam mooy comme euh, xalaqta euh, taa ul mutakallim muy mooy bind nga taa ul mutakallim maanaam mooy le fait ñu naan ko yow mi bind yow moomu voilà taa ul mooy comme xalaqtu bind naa man kooku noonu euh, Euh, euh, nuun nuunul mutakallim mooy nuun bi wax ne euh, kii wax mooy comme nahnu inna nahnu nazzalna zikra wala inna anzalna inna anzalnahu wàccee nañu ko moom alxuraan yàlla di wax naan ñun ñun googu ak wala wala wala mu ñëwee na feneen comme nu nu bayyinu lakum wala nu bayinu lako dañ leen di leralal wala ak euh ak la ban kaful kaful muxaatab moy innaka antal wahab yow yàlla yow ki wax ak yoy ak yaayul idafi manam euh comme euh bi yadaya manam bi yadi wala wala ayni wala wala tusna ala ayni yaa ngi ci sunuy bët sama bët maanaam comme ay walla yaa googu maanaam nga xam doo ko koo askanale maanaam comme bu ma naan lii ñeel na ma man voilà loolu yooyu ay turu yàlla la yoo xamante ne yooyu ñoom ñoom zaatee lañ dañuy dellu rek ci essence yàlla ci boppam mu am tur yi nga xamante ne dañuy dellu ci lan ci nafs nafs yooyu non non mais même même même même yooyu noonu mooy parce que lii nii zaatiya la mais mut alal alal itlaq la alal itlaq la manam moy ci luñ joyel mu am tour yàlla yoo xamne ne lañ ci essence am lay dellu mais du ci itlaq du ci luñ joyel mais ala taqyid la asmaa u mais ala taqyid manam ci luñu teunk la manam dañ ko teunk comme ar-rahman parce que lool lan moy sen caractéristique moy ne dañuy nekk ay tur yoo xam ne dañuy dellu ci nekk nekku borom bi subhaanahu wa ta'aala ci benn wàll mais ci geneen wàll gi dañuy dellu ci lan dañuy dellu ci meloom gi moom dañuy nekk ismu sifa ci benn wàll nekk ismu zaat ci benn wàll loolu moom moo tax ñu ñu nekk taqyid muy taqyid comme ar-rahmaanu yàlla mi aji fees dellu ji yërmande comme lan al-fardu càppaacul yi al-witru ki nga xamante ne dafa dafa dafa tóol muy tuul impair alwitru alwaaxidu ki mooy un maanaam un voilà euh, as-samadu ki nga xamante ne ngënk la mooy ki nga xamante ne amul biir amul biti amul biir amul biti waaw amul kaw amul suuf <laughs> voilà nga xamante ne dafa doyloo boppam ci lépp te ñépp ko soxla te moom soxlawul kenn loolu ak euh, euh, al nuur mooy leer gi yàlla parce que en tant que leer maanaam ndax mooy ki amal mbindeef yi mooy ki am dëgg-dëgg am feeñ dëgg-dëgg feeñ ak al euh, al quddus quddus mooy ki nga xamante ne dafa sell cellte gu ëpp xelu mbindi fi maanaam cellte goo xamante ne eh, yegg na ci deñ ci mbooleem loo xam ne wàññeeku la ak mboolem loo xam ne mat la ci mbindi fi maanaam mbindi fi ñoom dañoo mat mais maanaam dañuy am lu ñuy tuddee ak mat comme tey par exemple buñ nee nit ki day gis xam ngeen ne gis moo kii di gis moo gën a mat ki du gis d'ailleurs moo tax ki dul gis dañ naan daa handicapé ki nga xamante ne par exemple dafa dafay dégg loolu yooyu ay melooy mat lañ ci nit mais yàlla melooy mat yooyu ñuy wax ci nit ci mbindeef yi moom loola daf cee set da cee deñ parce que lu tax parce que moom li ñuy wax gis maanaam mooy moom gisam bokkut ak suñu gis maanaam lépp loo xam ne ci ñun dafa mat naan comme xam-xam xam-xam dafa mat ci nit ci nit maanaam mais bu dee yàlla moom matam dafa ëpp loolu maanaam dafa da maanaam moo tax xam xam-xam bi ñuy wax ci nit loola ak matadi la ci bu demee ci yàlla maanaam mu loolu mooy xudduus mooy nga ne dafa mat mat bu jéggi dayo goo xamante ne ak matadi ak lépp mat sax ci yi daf ci set euh, kon mooy le saint le sanctifié le saint wala l'infiniment euh, le sanctissime euh, mooy ku sell sell sell sell voilà yooyu am na kon tur yi nga xamante ne ñoom mooy asmaa u sifaat yi boo xam ne dafa am kamaliya asmaa sifaat dafa am yoo xamante ne kam ci kamaliya lañ maanaam mooy ci ci asmaa ul kamal la maanaam ci turu mat gi lay nekk lay dellu comme lu demee nekk ar-rahman ar-rahman ci wàllu googu day dellu ci ci loolu noonu comme ar-rabb yàlla la fekk mu nekk borom bi maanaam moom mooy rabbul alamin rabb borom mbindeef yi moom ñëpp yooyu kooku turu mat la. ak ak tur yu mel noonu yooyu maanaam day delluwaat ci matu borom subhaanahu wa ta'aala euh, euh, euh, léegi bu ñu xoolee mu am ci yooyu noonu sifaat yooyu yoo xam ne si maanaam sifatul jalaal ci sifatul jalaal lay dellu maanaam melo màggaay màggaay lay dellu comme lu demee nekke aljaliilu moo yàlla mi nga xam te dafa màgg màggaay bu ëpp xelu mbindeef comme al-azimu hmm? al-azimu mooy ki ki ki ki maanaam ngan ku ngan ngand mi ku naan ngand mi al-azimu al-kabir mooy ku rëy ki comme yooyu noonu ah ak al al mutakabbir al al al aziz et tur yi nga xamante ne daal maanaam ah, yooyu ah, dañuy dellu ci sifatul jamaal sifatul jalaal plutôt melo ta melo euh, majesté gi maanaam lu fait que jalaal mooy loolu mooy majesté gi màgg googu mu màgg parce que boo xoolee tur yooyu yëpp dañuy dellu foofu euh, mu am ci sifatul jamaal tamit voilà euh, comme sifatul jamaal par exemple comme rahim ku yaatu yërmande wala ñu mel noonu nga xamante ne day dellu ci mel ak yërmande gi ak yu demee noonu yooyu ko par exemple loolu ci ci ci ci tur ci tur yooyu la bokk comme am na yeneen tur yoo xamante ne ci sifatul euh, ja ja ja ci ci afaal yi la maanaam fi afaal yi yoo xamante ne day dellu ci maanaam mooy jëf yi yoo xamante ne day dellu ci jalaal mooy al jalaal yi asma euh, afaal yi mais yoo xamante ne day dellu ci jalaal gi maanaam ci màggaay gi maanaam majesté yoon comme lu demé nek al mu'izz moy nga xamantene mom moy wala bok astaghfirullah al muzillu bok ki nga xamne moy toroxalaté al xaafidu ki wàcce al qaabidu ki ñup wala ki ñup gaay hmm comme par exemple yoy non al muntaqimu ki mbugalaté wala mën nañ ko tuddee celui qui punit mais mën nañ ko tuddee le vengeur te moom mooy ki mooy mooy kiy fayu par exemple tour yooyu da ngay gis maanaam ay tour la yoo xamante ne euh, voilà comme al mudillu kii sànkaate am ah, mu am yeneen tour yoo xamante ne ci touru jëf la mais day dellu ci jamaal gi ci taar gi mooy lu demee nekk lan ah alxafuuru waaw kuy jéggalaate par exemple alba ah, euh, baasitu hmm. kiy tàllal mbir yi di yaatal ak yu mel noonu mais ci sifaat yi euh, yooyu euh, am naa partie bu ma ci tëb mooy xam nga dama tudd kamaal li tudd jamal ak jalal yi waxoon naa euh, ci ci ci voilà voilà mm. euh, euh, non nafsi bi ah, voilà nafsi yi doo tudduma leen mooy juróom-ñaari mooy yiñ tuddoon ci jotaay bi wees mm. waaw nafsi yi mooy mooy mooy yiñ tuddoon ci jotaay bi wees mooy yi nga xam te ne day dellu ci ci nafso mais ci ci sifaat yi laay wax mm. asma sifaat yi ndax kamaal gi laa tudd ak jamaal gi ak jalaal gi tudduma idaafe gi idaafe gi moom mooy mooy mooy juróom benn mooy yi ñu waxoon voilà awalu mooy ku njàlbeen gi mooy le premier aaxiru mooy ku mujj ki le dernier zaahiru mooy ki feeñ baatinu mooy ki nëbbu ah xaribu mooy ki jege albaahiru mooy ki sore yooyu juróom-benn la loolu ci sifaat yi lay dellu ci turu melo yi lay dellu mais nafsiya yi mooy juróom-ñaari yi nga te ne ñoom ci être yàlla lañ dellu voilà être yàlla lañ dellu en tant que bu ko wala par exemple bu ko mindee fi di appréhender di xam ne moom mooy kan di bàyyi xel mooy lan alxay mooy day dund parce que mënuñu imaginer yàlla bu dul dund ñun dañu xam ne yàlla dafay dund dund ko amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam te dund lépp luy dund ci dundam la jëlee ak dund alxay xam ne maanaam lu de euh, al al al muriidu mooy ki di namm mooy ki am volonté euh, euh, al al al samiu kii di dégg. albasiru ki di gis par exemple ci le fait que al al après al alimu mooy ki xam ki am xam-xam te xam lépp te dara ump ko al qadiru ki am kàttan sañ lu nekk di ko def al mutakallimu ki nga xam ne da dafay wax boroomi kàddu maanaam juróom-ñaar yi moo tax juróom-ñaar yi ñooy juróom-ñaari melo yi nga xam ne mooy sifatul maani yi mm-hmm. voilà Euh, yi nga xamante ne yooyu day dellu ci melo yi nga xamante ne maanaam euh, yooyu mënuñoo imaginer borom bi subhaanahu wa taala saa ñu xam ne yii mi ngi ci moom euh, ci ci nekk-nekkam ci eetram voilà kon juróom-ñaari tur la léegi nag jëf yi pare naa waxoon naa hmm. waa kon kon yooyu ci gàttal loolu la mais boo leen boolee ñoom ñëpp 137 lañ yi existé yi yi nga xamante ne alxuraan tudd na sunna yi ah nga xam ne cent 137 lañu yoo xamante ne eh, eh, ñoom ñoo ëmb yeneen tur yëpp yëpp parce que sinon comme ni ñu ko gisee woon tur yàlla yi amuñu fu ñu amuñu nombre bu limité maanaam dañoo illimité dañoo infini au moment où particule bu nekk atome bu nekk dafa am turu yàlla bu ko créer te am na tour yàlla te te benn turu yàlla. yàlla du ci bind ñaari mbir niki noonu ñaari mbir duñu bokk benn tur yàlla bi leen bind voilà amul ñaari atome ñaari particule yu bokk tur yàlla bi leen bi tax ñu exister bi leen amal ba pare benn tuur yàlla bi yàlla du ci amal ñaar ñaar yooyu voilà hmm? du noonu la wax bi mm-hmm. maanaam benn tur yàlla bi du amal ñaari mbir yu wute mais benn mbir waaw kay benn mbir du am ñaari tur yàlla yu ko exister voilà wax bi noonu la ce qui fait que euh, yàlla yi ñuy wax 137 yi maanaam ñoom mooy yi ëmb yeneen yi ci des mais ci seen biir am na li nga xamante ne moom mooy 99 yi yi nga xamante ne ñoom leer na ne 99 lañ. te loolu daañ ci ñëw léegi insha allahu taala mais le fait tur yàlla yooyu tudd al asmaul husna maanaam tur yi nga xam ne ñuy gën a rafet loolu borom bi subhaanahu wa taala le fait que mu koy tudd te tudd na ko ci alquran ci ñetti bërëb mooy walillahi al asmaul husna fad'uhu biha comme niñ ko gisoon suratul araf <coughs> qul ud'u llaha aw rahman ayyamaa tad'u ayyamaa euh, isra ak ci suratul hashr man uh, huwa allahu alxaaliqu albaari almusawir lahu alasmaa alxusna muy kon ñetti place yoo xam te ne borom subhaanahu wa taala daf ciy wax ne turam yi ñoom ñoo yi gën rafet loolu nag daf ñuy jàngal ne yow mbindeef yow doomu aadama amuloo tur bu rafet maanaam say tur yépp rafetuñ kon dañoo dañoo ñaaw sauf que tur bu rafet rek c'est parce que la turam moom yàlla maanaam bu ñu diw ku la c'est parce que yàlla moo ko ràng turu mbaax buñ ne diw ku ku ku ah euh, ku tedd la mooy yàllaa koy ràng turu teraanga mais ak ak mero teraanga diw day gis diw day dégg diw day yooyu yëpp day wax day yooyu yëpp mooy yàllaa ko ràng ay meloom waaye sinon moom ci jëmmi boppam turam rafetul turam yi rafetul melam yi rafetul d'ailleurs jikkoom yu rafetuñ te loolu mooy nature loolu mooy naturel bi su su su baaxee rek xamal ne yàlla moo la ràng bosam te bu boobaa da nga koy xoolee comme état puré da ngay dangay di nekk koo xam ne dangay ngay eh, delluwaat ci yàlla ci ay turam moom yàlla ak ay melo et que nga nga moomale loola yàlla mais nga bañ ko moomale sa bopp d'ailleurs loolu moom moo tax eh, da même même ñun ci wolof dañ koy gis ah buñ naan diw non diw diw dafa am jikko bu ñuy wax diw dafa am jikko rek du jikko ju baax maanaam euh, souvent <laughs> jikko ju dayaar la voilà loolu <laughs> ah yii diw defal attention ak mooy tënd ko parce que dafa am jikko hmm? voilà donc yooyu euh, moo tax yooyu yëpp kon yu ci yu ci mat a la euh, beneen. kii bi nga xamante ne moom lañu war a gis maanaam daanaka mooy masala xam na amaan na sax peut-être bi ñuy jeexale pour mën a dugg nag léegi ci 99 yi nga xam ne moom moom la ñu war a dem insha allahu taala mooy dañuy gis ne euh, dafa am lu ñuy wax tur ismu parce que foofu loolu loolu moom moo desoon pour ñu leeral dafa am lu ñuy wax ismu mooy tur mooy le nom mu am lu ñuy wax al mooy ki ñu tuddee tur bi mooy le nominé ki ñu ko tuddee mu am lu ñuy wax ak tasmiyatu mooy tuddee gi jëmmi tuddee gi la nomination l'appellation voilà euh, ñett yi duñu benn ñett yi ñu benn te ñett yi suñu leen xàmmeewee daf ñuy régler ay problèmes yu bare bare ci ci ci côté yu borom xam-xam yi di xëccoog yu mel noonu parce que tur mooy lan tur mooy li nga xamante ne dafay tegtale ci ki ñu tuddee day tegtale ci ki ñu tuddee maanaam moom dañ ko dañ ko fi teg maanaam baat la boo xamante ne baat la bu composé wu ci ay lettres ak xaraf mais buy tegtale ki ñu tuddee mbir mi voilà léegi euh, loolu nag parce que mbir mu ne mbir mu ne en fait dafa am ñetti existence dafa am existence bi nga xamante ne mooy li ñuy wax al wujudu fil ayaan maanaam existe bi mu existe ci réalité maanaam ci nekk-nekk yi ci ci ci entité yi ci ci mbir yi

ni may concevoir affaire yi mu am existence foofu maanaam boobu euh, euh, euh, bokkul ba tey ak existence bi mu existe nee après mu am lu ñuy wax al al wujudu fil lisaani existence bi ci làmni bi tey imaginer li waaj yi foofu fauteuil bi may wax fauteuil bi tey moom existe na moom en tant que su ma ko xoolee ba ma gis ko nii ba ma xam naa xam ni lii fauteuil la ma daal di gëmm tey bu ma gëmee image yu photo bi fauteuil bi image bi day des ci samam xel du dëgg oh. de telle sorte que damay xam ne lii fauteuil la tu fii fauteuil la de telle sorte que tey fauteuil yi su demoon ba ba ñu jëlee ko fi maanaam ñu dem yàq ko détruire ko lakk ko wala ñu def ko dara amatul ci ni maanaam day daal di continuer di des samam xel voilà image am parce lan moo tax parce que image am euh, euh, dafa dafa gravé mun tabia voilà dafa gravé ah impressionné ci samam xel lu dëgg existence bi nekk ci samam xel ci fauteuil bi bokkut ak existence am dans sa réalité ñaar yooyu benn mais pour ma man koo maanaam pour ma man di wax ak nit ñi ñuy mën a xam li may wax lan la il faut que mu wutal ko tur mais loolu noonu il faut que mu wutal ko tur ci sama làmmiñ foo tëy naan foo tëy maanaam de telle sorte que bu ko xam ne lii lii fauteuil la comme bu ma nee kursi yu wala sarira maanaam il faut ma man wutal wutal ko tur te tur boobu noonu mën na wuute solo làng bi may wax bi may utiliser mën na wuti solo langue bi may utiliser mais mën na wuute aussi solo li ma soxla ci moom xam nga tey bu ma nee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le fait que man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak le fait que ma naan rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ak bu ma naan bu ma naan sayyidul wujudi sangu bindi fii maanaam yii yëpp amul benn bu ci bokk moo naan Seydina Muhammad ibnu Abdullahi maanaam yii yëpp amul benn bu ci bokk ak moroomam te pourtant ñëpp même min même mindeef gi même nit ki lañuy ñuy waxal voilà ah bu ma woowee nit ne ko ne ne ko euh, par exemple euh, euh, docteur kilifa gi Samba saawaay yii yëpp même nit ki la ñuy waxal mais caractéristique yi ma utilise ñoo dul benn loolu li ko waral mooy ne tur bi parce que tur bi ci jëmmi boppam bokkul ak tuddee gi tuddee gi maanaam tur bi mooy baat yi di tegtale ki ñuy tuddee mbir mi tuddee gi nag mooy le fait que ma am baat boo xamante ne dama koy jël di ko mettre en place teg ko pour mu mën a am ku ma tudd pour ma mën ko tuddee ki ñu tuddee mbir mi kooku mooy jëmm ji kooku mooy jëmm euh, loolu moom moo tax léeg-léeg léeg comme li alxuraan di wax naan in hiya illa asmaa'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha sultaan yéen daal doo koo leen di jaamu lu dul ay lan ay tur yoo xamante ne yéen a ko tuddee as sammaytumuha yéen a ko ku tuddee ga mbir yooya yéen wa abaakum ak seen bàyyi waaye ma nazzalallahu biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay amul benn argument benn lay benn autor buy buy wane ne ñii dañ leen war a jaamu loolu moo tax bu fekkente ne da nga jàpp ne ki ñu tuddee mooy jëmmi loolu moom moo tax xam nga ismu al ismu moo tax dañu mooy mooy day dellu ci masala ba halil ismu aynul musamma est-ce que tur mooy jëmmi kiñ ko tudde waaw wala déet bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee xaajale ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne tur gi ak ki kiñ ko tuddee benn la mais loolu noonu loolu dese naa dëgër lu tax parce que ki ñu tuddee mbir mi parce que lenn mën na ne lenn ñoom lenn lañu lenn lenn moom lañ leen mën a nangul mooy ne ki ñu tuddee mbir mi ki ñu tuddee mbir mi du jëmmi ki ñu ko tuddee maanaam maanaam tur bi du jëmmi ki ñu ko tuddee waaye day tegtale ci ki ñu ko tuddee maanaam mooy tey bu ma nee Samba Samba maanaam baatu si S A M B A du loolu mooy jëmmi Samba waa ji mais. pour mais xaraf yooyu teg yooyu day indiquer ki nga xamante ne moom moo tax ñuy wax muy sàmm waaye mu am beneen point foofu bu ma a bàyyi xel mooy turu tur mooy ne euh, euh, euh, comme bu ñu xoolee aaya boobu ñoo ñoom buñ ko bëggee lay dañ naan gaa yi kat ñoom asmaul la ñuy ay asmaul la leen yàlla jaamuloo la yàlla wax ne ñoom la ñoom la ñuy jaamu ay tur te xam nañ ne ay xërëm lañ doon jaamu comme ne d'ailleurs foo ñu wax afara ay tumul laata wal uzza wa manaata saalisatal uxra maanaam xanaa gisoo leen laat ak uzza ak manaata xam nga ñooñu dañ daan jaamu ñoom ma laat manaat uzza maanaam ndax ay tur yàlla lañ jël jigéenal ko ay tur yàlla lañ jël jigéenal ko allah lañ jël jigéenal ko muy laat al aziz ñu jël ko jigéenal ko muy uzza al mannaanu ñu jël ko jigéenal ko muy manaat yàlla ne nag ñii yépp ay tur la rek ay asmaawum ay tur la yoo xam ne yéen leen ko tudde yéen seen bàyyi yàlla wàccewu ci benn lay wa maanaam mooy ne ñii doole waru leen leen jàmm ñu ne bu fekkonte ne tuur bi du woon jëmmi ki ñuy tudd kon lan kon yàlla du wax ne ay tuur ngeen di jaamu parce que ñoom daanu nekkoon di jaamu tuur bi xërëm bi ci boppam lañ mais ñooñu def na leen tontu ne leen déedéet tuur bi du ne day jëmmi tuur mais le fait que koy indi ci la moo tax ñu waxee ko noonu soo leen bëggee ñu ne ya ñoom ay tuur lañ teg yoo xamante ne amul parce que yàlla loolu la dàq ci ñoom mooy lan mooy dañoo jël turuk maanaam ak ak ak ak ak ak ilaahiya wala uluhiya mooy divinité ñu teg ko ci ay jëmm yoo xamante ne yoruñu tur yooyee maanaam c'est comme si kon dañuy jaamu une divinité qui n'existe pas en fait boo xam ne existé wu loo xam ne comme tur bi rek lañuy ñuy jaamu mais mëneef na ko tuddee ne leen looloo tax alxuraan ni mu jëfandikoo baat foofu parce que na ñaari yoon wax ju mel noonu mooy sóortu yuusufa ak sóortu naj mi euh, te ñaar yi boo xoolee euh, euh, léeg-léeg ñun par exemple am na ñoo xam ne dañuy jaamu ay yàlla yoo xamante ne yàlla yooyu noonu du ñu ay jëmm yu ñuy mën a téye di ko làmb naan yi ñi ni mais ay tur la lu demee nekk laïcité lu demee nekk démocratie lu demee nekk communisme lu demee nekk libéralisme xeet yooyu noonu ay tur la mais du ay jëmm yu taxaw nii ñu ñu mën leen a taxaw di leen jaamu voilà te pourtant ñi nga xam te ne dañ leen di topp ñoom dañ leen di jaamu maanaam ñoom de telle ko que mënuñoo imaginer ngay jaamu beneen yàlla bu bokkut ak woowu d'ailleurs parfois sax dañuy jël yàlla bi nga xam te ne moom dañu ñu waroon a jaamu ñu teg ko nee ne waruñu koo topp kenn warutoo topp ay mbiram kenn warutoo wax ay waxam kenn warutoo bàyyi xel ay mbiram maa dañoo war a topp rek lii modèle bii moo baax. te kon euh, euh, euh, mais ba tey tur bi dafay indiquer système bi maanaam kon ba tey dañuy gis ne tur bi ak jëm yi li ñu ko tuddee lu nekk du benn ba tey voilà loolu kon maanaam yi ñu doon wax ci boo seetloo ci jotaay yeeweesu doon wax luy luy luy maanaam da naan lii day layal loolu lañ ko doon noonu lañ doon wax boo leen fàttali ko dañ naan ah wax jii de mooy le fait que ñu naan comme sabbih isma rabbikal a'la borom di utiliser lool sàbbaalal sa tur borom ba pare bor yent bi saa salaam nañu nañu wax leen subhaana rabbil a'la maanaam day layal nee la tur bi muy nekk-nekk muy entité wu aynul musamma ki ñu ko tudde waaye ci benn sens la koy layale mooy ne en fait du aynul musamma dëgg-dëgg mais day teg tele ci al musamma maanaam mooy lan ku jàpp aw tur dalay yóbbu ba ca kañ ko tudde te loolu noonu dafa appliqué wu ba ci biir mbindeef yi yàlla dafa créer mbir yi ci anam gu doy waar de telle sorte que tur yi dañuy am lan dañuy am lien bu direct ak ak kiñ ko tudde mooy al musamma diggante al ismu ak al musamma nag ak tasmiyatoo fi ne moo tax ñu wax waxoon di wax jooju maanaam diggante tur bi ak kañ ko tudde tuddee gi ci yëpp boppam moo fi nekk diggante le nom et le nominé y a la nomination euh, turu ki nga xamante ne moom la moom la euh, ki ñuy tuddee mbir mi maanaam euh, lien bi muy am li muy bi muy am dafa dafa spirituel trop dafa spirituel trop de telle sorte que soo tuddee benn mbir mu mën a doon dafa am benn système ci univers bi bu yàlla créé buy déclenché wu ci saa si pour mën a am accès ci kii ñu koy tudde loolu moom moo tax ngay gis comme lu dama nekk li ñu naan cat cat li tax cat di mën a dal nit pourtant day wax rek la naan diw di tabarkalla affaire bii nangam nangam diw kay affaire loolu affaire faf cat dugg ci loolu boo gisee mu mën a ne mooy ne tur foo ko prononcé dafay am benn système bu yàlla di déclencher système spirituel la bu yàlla di déclencher ci univers bi boo xamante ne day déclencher wu ci saa si yàlla moo bindee noonu mbir yi de telle sorte tur bi lay yegg si foofu. bokk na ci li koy wane tamit mooy ñaan tey bu may ñaanal benn waay boo xam ne mi ngi dund wala génn na àdduna wala sax xëy na juddoogul wala yu mel noonu turam rek laay tudd maanaam jarul beneen spécificité. tur bi rek bu ma tàllalee samay loxo ne di ñaan yàlla diw dàngam dàngam def tur bi rek laay tudd système bi déclenché nit ñi ki nga xamante ne day njaber tamit tur bi lay utiliser maanaam bu jëfandikoo turu waa ji rek ki muy njaber rek da ngay gis système bi déclenché parce que lan moo tax parce que yàlla moo tege noonu maanaam Euh, euh, euh, mbir yu yàlla moo ko defee noonu de telle sorte que mu am lien bu yéeme yéeme yéeme entre tur ak ki ko ki loolu nag moom mooy indi ki tudd bi tur bi di am ay effet ba ci ay jikkoy ki nga ñu ko tudde loolu moom mooy moom moo indi moo indi mbir moom voilà loolu moom moo tax lu moo tax bàyyi xel la comme ni ñu ko waxee waxaat ko waxaat ko ci ay jotaay yu yu wuute euh, léegi euh, kon euh, ci ci ci ci gàttal maanaam bu ñu bu ñu bu ñu kiyee daanaka maanaam léegi jeexal nañu maanaam li nga xam ne moom lañ doon ubbee ci bunt bi li ëpp solo en tout cas ci ci ci li ñu waroon a gis ci masala yi aju ci mbir yi loolu léegi jeexal nañ ko euh, ismu nag comme ni nga xamante ne kon léegi mu ne euh, euh, voilà léegi asmaul xusna yàlla walillahi asmaul xusna fad'uhu biha yàlla moom moo yor kon tur yu mag yu rafet yi tur yooyu bu ñu xoolee léegi peut-être que dañuy dañuy tàmbali dañuy dañuy wax ci cosaan bi bon dañ koy gàttal ndax gisoon ko mooy partie voilà ci durratu xalda bi euh, mooy tur ismu borom xam-xam rahmatullah alayhi lan mooy cosaanam bu fekkente ne euh, waa Basra lañ ñoom li ñu jàppee ne mooy tur cosaanam mooy ne dafa jóge ci assumuwu bii tekki ak yëkkatiku muy élévation kawe kon ñoom euh, moo tax kon kon bu boobaa tur

voilà léegi bu dee ism mu comme tur nag mooy cosaanu yeneen ñi ci des ba pare euh, ci la verbe génnee ci la xaraf yi tamit xaraf yi tamit ci moom la ñuy soit ci maanaam moom la ñuy appliquer woo wala ci moom la ñuy en tout cas ci moom lañ dépendre ci tour bi lañ dépendre loolu moom moo tax ismu ñu tuddee ko ismu maanaam yëkkatiku kooku mu yëkkati ko wala mën na tekk leneen mooy ne le fait que tur day yëkkati borom. mooy tey bu ma nee Moodu fi mu toll jotaay bi lu ñu bëri bëri bu dee waa moom moo rek a fi tudd Moodu bu ma nee Moodu rek maanaam day daal di wàcc ñépp yëkkati ko moom ki voilà day wàcc ñépp yëkkati ko moom kese te ci sens boobu kon ismu euh, maanaam mooy nit ki kon dafa war a maanaam euh, euh, le fait yàlla moom tur yu rafet yi maanaam day wane ak yëkkati ko borom bi subhaanahu wa ta'ala ci côté yépp mais tamit day wane ni nit ki nga xamante ne moom moo war a mooy maanaam ci biir loolu nit ki tamit dafa war a am benn ambition yëkkatiku moom tamit jëm ci boromam subhaanahu wa euh, bu fekkente ne ba pare tur bu nekk day permettre nit ki yëkkatiku tur yàlla bu ne day permettre nit ki di yëkkatiku ci ay maqaama et cetera maanaam yëkkatiku jëm ci boromam subhaanahu wa taala ñaareel bi ci des moom mooy nekkoon ismu ci sima la jóge as comme li Alxuraan wax sanasimuhu alal xurtum maanaam ne Walid ibn Mughira Alxuraan nee na sanasimuhu daañ ko màndargaal alal xurtum ci ci ñux bi mooy ñux mooy euh, bakkanu euh, ñay moo tax mooy fii nii mu ne mu ne kon comme en fait bakkanu ñay moom lañuy wax ñux waaye moom dañ borom subhaanahu wa taala waxee noonu ngir maanaam xaw ko kokkaliwaale ci biir biiru lool kon sanasimuhu alal xurtuum moo tax Badar bañ koy bañ koy rey dañoo dóor dañ ko dóor ci ci ci ci ci ci bopp bi yuur gi génn yuur gi génn war yor ci ci ci ci comme ci bakkan bi mel ni comme xurtuum noonu mel ni comme ñu xoo yàlla ñu war voilà euh, wala inna fi zalika la ayatan lil mutawassimina lii de bokk gii naa ni kéemtaan la kéemaan la ñeel ñan ñi nga xam te ne al mutawassimina voilà bu dee ci sima ci sumu gi xam naa après boo koy ci boole ci ay wax ci asamaan mooy comme ni ñu ko xam hmm. te durat xaarida ak yooyu hmm. voilà incha allah léegi mu ne inna fi zalika lii de lu wér wóor mooy nekk na ci aayaatun ay màndarga ay kéemtaan yu maa waaye mu wane màggaay yàlla mu ne lil mutawassimiina ñeel ñi nga xamante ne dañuy jëlee maanaam mutawassim muy kuy kuy kuy xàmmewee maanaam koo xam xamante ne ay signe ay màndarga da koy daal di doy koo xamante ne day xool mbir yi di gis kéemaanu yàlla à travers màndarga yi à travers signaux à travers indices yi kon euh, euh, euh, euh kon tour ñu né fofu le bat bi jóge mais euh kon bu boba moy lan moy ni tour day mandargal ki ñu ko tudde moom day tax ñu mëna mën a màndargaal ki ñu ko tudde loolu tamit dafay dafay dafay dafay wane ne manam ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy jëfandikoo benn tur ci tur yàlla yi dafa war a maanaam màndargawoo daa war a màndargawoo jikko ak melo yi nga xam ne ñoo nekk ci tur booba euh, li nga xamante ne nag mooy kon loolu moom mooy waa kuufa waa kuufa ñoom loolu ñoom ñoom ñoo wax loolu voilà wastaqal isma min sama albasri yu wastaqahu hmm, hmm, min wasimal kuufi yu wal madhabul muqaddamul jalilu daliluhu asmaa wa suma yi comme la waykat bi wax ismu ismu euh, basari bi moom dafa jàpp ci sama wala la jóge wala sama mooy lu yëkkati ko kuufi bi jàpp na ne fi mu jóge moom mooy ci wasima maanaam ci assima bi màndargaal la wala màndargaal waaye wax ju njëkk ji mooy bi gën a dëgër bi wér gën a feeñ te lan mooy preuve bi mooy al asmaaw ak assuma mooy lan mooy bu ma jëlee plurielu asmaaw damay am lan damay am plurielu mooy afaal ci ismu afaal forme boobu damay am asmaa wu waaw laay am ci sumu waaw la asmaa wu mais comme xar araf bi xarfu illa la mooy xaraf la boo xam ne lettre défectueuse la boo waaw mu daal dellu si nekk maanaam waaw xaraf boobu la donc day daal nekk asmaa u pour mu neex a wax léegi bu fekkente ne euh, alors bu doon euh, ci sima la jóge simaat lay kon dootu mën a nekk pluriel bi dootu loolu alors bu fekkente ne ci Euh, bu dee sumayyu parce que bu ñu ko tasxiiree léegi maanaam tasxiir mooy euh, diminutif bi bi mu amee sumay wu laay am sumay wu mais comme waaw bi lettre défectueuse la pour mu neex wax ma ne sumay yu maanaam ma di waaw gi ma remplace ko par beneen yaa muy sumay yu alors que euh, bu dee ci ci ci sima la bu demee noonu kon yooyu moom mooy wane ne mooy wane lan mooy wane ne kon lii euh, ne cosaan bi mooy bu njëkk bi waaye ñoom ñaar ñëpp wér nañ conséquence bi nag euh, comme niñ ko gisee woon mooy ci mu'tazila yi ak euh, waa ahlu sunna waa ahlu sunna ñoom ñoom seen conséquence mooy dañu jàpp bi ñu gisee ni xaraf di nit ni li gën a dëgër mooy ni ismo donte dàkkontewul ak leneen li ne mu mën a jóge tamit ci sima mais ne ismu tur mi ngi jógee ci as ci sumubu bi tek yekitiko war sama bi tek manam yekitiko moy sama moy verbe sumu su moy moy euh, substantif bi mu jóge le fait que mu jóge fofu loolu mo waral manam ne kon tur yalla yi dañ fee dañoo mës sax manam dañoo mës sax ci existence alors que bu dee Mu'tazila ñoom dañ japp né déedéet tur yalla yi maanaam dañ fiy nekk parce que mbindeef fi ne bu fi mbindeef yi nekkatul dañ fii dañuy jeex moo tax imaam al-Qurtubi rahimahullah daal ne seen wax jooju de moo gën a ñaaw wax gi ñu wax ne alxuraan dañ koo sos maanaam dañ ko créé ne waxu yàlla la waaye bu mu la parce que alxuraan waxu yàlla la mais du luñ créé loolu moo tax mu nekk melox borom bi subhaanahu wa taala mais li créé wu mooy lettre yi ak këyit yi ñu koy bind ak lettre yi ak ñun suñu voix yi koy wax waaye ndax day tegtale ci liy tegtale ci waxu borom subhaanahu wa taala ci kaw loolu tur yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp tur yàlla yëpp dañoo am cosaan maanaam dañoo am dañoo dañoo mës a dañoo mës a exister te duñu dañ te exister maanaam yàlla la fait ko mu nekk alxaaliqu ki nga xam ne muy aji bind ji c'est pas parce que mbindeef yee ci nekk yee fi nekk moo tax mu nekk aji bind wala ar razaq mooy aji wërsëgalaate bi c'est pas parce que ki muy ku ñuy wërsëgal moo fi ne moo tax mu tudd noonu mais naka jekk noonu la mës a tudd te du denc ko tudd buñ demoon ba amatul kenn ku ñuy wërsëgal ku fi ne yàlla dafay denc di continuer di nekk ar day continuer di nekk ar razaq di aji wërsëgalaate comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ki nga xamante ne ab menuisier la par exemple c'est pas parce que euh, euh, euh, am na chantier rek wala maçon bi c'est que am na chantier rek dañ ne léegi maçon la et bu chantier bi jeexee. bu demee di tëdd di nelaw par exemple wala muy tukki kenn dootu ko mën a tuddeeti maçon parce que tukki na léegi day tukki wala léegi et cetera déedéet c'est pas parce que dafa nekk ci biir chantier bi rek que lañ koy tuddee maçon déedéet. voilà c'est loolu moom lañ mën a comprendre ci nit walillahi masalul ala waxuma la borom subhanahu wa taala donc loolu tamit beneen teqantal la boo xam ne dana mat naa bàyyi xel beneen bi ci des bi nga xamante ne. Euh, Euh, ba tey ci ismu maanaam ci ci ci ci ci tur yi la euh, la la la la la la aju mooy ne borom subhaanahu wa yooyu nga xamante ne moom lañ dajale muy 137 yi yi nga xam ne moom lañ wax nga xam ne dañ leen a tënk ci 99 99 yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen tudd. ñu ngi ci hadith bo xamante ne xadis Seydina Abu hurairah radhiyallahu taala anhu bu nekk ci sahih nekk ci sunan yi et cetera ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna lillahi tisa daf ne inna inna inna allaha jamilun wa yuhibbul jamal inna lillahi tisata wa sittuna asma isman tisata wa sittuna isman man axsaaha daxalal janna wa innahu witrun yuhibbul witra yàlla inna lillaahi ñeel na yàlla tisaata wa tisfoona isman juróom ñeent ak juróom maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ciy tur daal ne al mi'ata téeméer lañ bu manqué benn lu fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam téeméer la bu manqué benn loolu day dalil day tëkkale ne lim ci jublu mooy ne quatre vingt dix la mais jubluwu ci bëriwaay bi parce que léeg-léeg mën nañoo waxee noonu ba pare dafay teg dafay génnee li ñuy tuddee mafhumul adat ndax mafhumul adat donte dëgërut mafhumul adat mooy maanaam mafhumul adat dëgërut loolu moom moo tax tey mafhumul adat mooy lan mooy tey bu fekkente ne dama ne dem naa màkk juróom-ñaari yoon. loolu tëgtaliwul ne juróom-ñaari yoon keese keese keese laa dem màkk loolu la tuddee maanaam yow bu ma nee dem naa màkk juróom-ñaari yoon li li yow loolu mafhum mooy nga comprendre nga comprendre contraire mbir à travers li ma wax mafhum yi nag dañoo bari douze lañ douze façon ma ma mafhum ñoom mooy mafaahim yi mais mafhum bi nga xamante ne bokk na ci mafhum yi gën a doyee di ci mafhum yi mooy lu ñu tuddee mafhumul adab tey bu ma nee bu ma nee euh, euh, ku sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam invité nañ la gàmm nga xam nga tey li nga ciy déggee li nga ciy déggee maanaam li ma wax mooy lan li ma wax mooy lan mooy ne dama mooy ñi sopp yi soppe ci yàlla Muhammad yépp sallallahu alayhi wasallam invité naa leen bàyyiwuma kenn ci biir soppe yi maa daama soppe nga ci seen ci yent yàlla loolu mooy li ma wax ci phrase boobu du dëgg léegi mu am loo xam ne waxuma ko mais mu nit ko ci déggee mooy nag képp ku sopp yent bi moom sallallahu baal naa la ko bul dem bul ñëw mais loolu man waxuma ko mais mu lu na ko déggee ci sama wax ni est-ce que wax jooju nag mën na nekk argument li ngay déggee yow ci wax ni wala déet loolu moom moo am ay teqantal borom xoxo yu wuute ci rahmatullah ba pare mu am ay teqantal am na yoo xam ne dañoo dëgër am na yoo xam ne dana dëgëruñ comme mafhumu shart dëgër na ak mafhumu sifa mafhumu shart mooy ma ma tëralal la condition ma tëralal la condition mais soo Euh, ne la ne la euh, lii de comme euh, joxe exemple jigéen ñi xam bu baax lii de guro gii de maanaam maanaam sa aajo bi boo bëggee wala boo bëggee sa jëkkër gën laa bëgg da jël juróom-ñaari guro guro mais ci condition nga sarax ko imaamu jàkk maanaam loolu mooy lan mooy condition bi mën a tëral loolu li muy tekki mafhumu shart mooy lan mooy soo ko saraxee keneen ku dul imaamu jàkka sa affaire bi du baax loolu moom day dëggal mais mafhumu <laughs> ak ñoom mafhumu mooy melo bi mooy ne juróom-ñaari guru la war a doon ak yooyu mais mafhumul adad li tax du baax maanaam am na yoo xam ne mafhumul ghalib la mais mafhumul adad pour gàttal daal maanaam mafhumul adad moom dëgërul mafhumul adad mooy. bu ma nee dem naa juróom-ñaari yoon màkka loolu tekki teelul ne juróom-ñaari yoon rek laa dem màkka boo ko ci jéggi rek yow kii léegi nag wala comme li alxuraan wax istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marra lan yaghfir soo leen jéggaloo juróom-ñaari yoon boo leen jéggaloo nga jéggal nga jéggalul leen nga sàkkul leen jéggal ñoom naa fekk wala nga bañ leen sàkkul jéggal moo yam ci ñoom soo leen ñaanoon soo ñaanoon yàlla jéggal leen soixante-dix fois yàlla du leen jéggal loolu boo ci déggee ni bu ma ko defee soixante-onze fois yàlla dana leen jéggal loolu du du du doon lu wér ndax lan ndax mafhumul adat la mafhumul adat du dëgërut maanaam mooy li muy tekki mooy boo leen jéggalooloon fii ba àddunay tukki du baax voilà boobu mafhum du dëgëru am na euh, comme par exemple euh, bu ma nee bu comme li yent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al fitratu salaasa fitra yi ñett lañ loolu taxul taxul mu nekk ñett kese ndax am na yeneen li koy dëgëral mooy yeneen xadiis yi mu wax ne al fitratu arbaa wala ñeent lañ wala mu ne al fitratu moy jikko yi nga xamne fitra yi mooy jikko yi nga xamne yàlla da ko bindé naturellement bindee fi ba pare tan na tànnaloon ko mu nek jikko yeneen yi alayhi sallam amna hadith bu mu ne al fitratu khamsa fitra yi juróom la amna feral fo xamantene sax fukk la lim ci hadith bu nek Sahih Imam Muslim mooy sunanul fitra mu tuddé leen mu ne sunan mu ne ashra mu lim juróom mu lim fukk manam loolu moy lutax parce que mafhumul adad la motax moy ne ko limbi legui nak léegi nag mul mafhumul adad dafa faible yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne bimu ne 99 yàlla amna 99 tur parce que suko bàyyi won non rek mu nekk na ci déggee ne al asmaul husna ëpp nañ 99 ya yenent bi sallallahu alayhi wasallam da ko wax rek ngir wax lim mu daal di al mi'at timir illa wahid yu manqué benn kon ñu daali xamne kon nak 99 yi la ci djublu ndax précisé nako mu ne man ahsaaha képp ku leen pekk daxalal janna day dugg àjjana am na riwaaya bu nekk Sahih Imaam Buxaari rahimahullah mu ne man hafizaha ku leen mokkal parce que baat hafiza day tekki mokkal mais dafay tekki aussi ah wattu wattu c'est-à-dire képp ku leen téye ba pare bàyyi xel sens bi ba pare bàyyi xel bi jëfe maanaa yi ci ne daxalal janna day dugg àjjana Euh, mu teg ci ne in wa innahu te moom yàlla witrun dafa tuur mooy daa impair yuhibbul witra moo tax dafa bëgg lu tóol non seulement dafa bëgg moo tax dafa bëgg lu tóol moo tax xadis boobu mën na tekki moo tax borom xam rahmatullah alam dañ ci wax ay wax yu bari bokk na ci mooy ne witr dañ koo mën a firi mooy yàlla dafa bëgg witar maanaam julli witar ci boppam maanaam yàlla comme moom witar la dafa sopp jullit witar mooy ràkka boobu ñuy war a mujjee li yent bi saasam ija alo axira salaatikum layla witar def leen seen mujjantal ak julli guddi mooy witar muy benn maanaam muy lu tóol witar nag mun na bañ a nekk mooy bu ñu naan safa witar witar boobu safa mooy lu tóol mooy pair witar mooy impair comme li alxuraan wax wa shafa'i wal watar wal layli iza yasa wal fajri wa layaalin ashr wa safhi wal watr maanaam mooy safa ak witar mooy lu peeri waat na ci lu peer ak ci lu impair mais comme witar yàlla dafa ne benn la moom moom moom moom dafa tóol ndax kenn la ba pare dafa bëgg lu tóol maanaam dafa bëgg witar witar googu ñuy wax maanaam bu dee jullit witar lañ koy firé maanaam jullit witar obligé wul mu nekk benn obligé mu nekk benn rakka de mën naa nekk ñetti rakka maanaam nit ki julli ñetti rakka yoo xam ne du sëlmal loolu witar la mën na julli juróom juróomi rakka yu mu dul sëlmal la mën na julli juróom-ñaari rakka yu mu dul sëlmal witar la mën na julli juróom-ñeenti yu mu dul sëlmal witar la mën na julli fukki rakka ak benn yu mu dul sëlmal witar la comme ni ko xadiisu Abu Ayyub al-Ansari bi radiyallahu ta'ala anhu wax mu ne su mu imaam Abu Dawud rahimahullah yent bi salaa salaam ne yent bi salaa salaam na benn witaree na ñetti rakka witaree na juróomi rakka witaree na juróom-ñaari rakka witaree na juróom-ñeenti rakka witaree na fukki rakka benn voilà mais na tu na nekk lu lu tóolante ko te bu xoolee loolu yent bi salaa salaam daf koy appliquer ci yu bari maanaam lu fekk que muy tóol muy tóolal mbir yi comme li nga xamante ne moom lay digle ci njàpp njàpp bi ci gën moom mooy salaasan mooy ñett mooy ñett ñett sinon mën nga def ñaar ñaar wala benn benn mais ñett ñett bi moo gën witr mooy tóol gi bokk na ci te yi nga xamante ne sax benn maanaam yooyu kenn du ko def ñett yi mooy comme massa bopp bi bu boobaa benn ngay def muy muy bu tóol ndax witar moo gën lu dul ndax yàlla comme ni ko xalis bi waxe euh, ànd ak kenn ku ci nekk borom bi subhaanahu daf laa bind nga nekk koo xamante ne moom dafa tóol moom yàlla c'est-à-dire que dafa dafa dafa dafa tóol ba pare mu mu def ku tóolantiku maanaam nga tóolantiku mooy lan mooy le kenn ku ci nekk kenn nga cest à tey kenn ku ci nekk ci mbindeefu yàlla yi. amuloo keneen koo xamante ni yéen a nuroo ci lépp amul kenn ku ci nekk kenn nga te lenn lu ne particule bu nekk benn la comme ni ñu ko gisee woon benn muy ndax lan ci benn tur yàlla kese yàlla bindee particule bu ne moo tax gis kenn ku ci nekk nit ku ne ak lenn lu ne lenn la tey bu ma xooloon tey euh, usine bi di defar par exemple euh, euh, dictaphone yi wala muy defar brique yi wala même bu fekkee ne da leen di defarandoo yépp nuroo wala stylo yu big yi yépp nuroo bu ñu leen génnewee da gis ne bii ak bii du benn parce que maanaam mënuñoo nekk ñoom ñépp ñu nuroo parfaitement amul. amul benn usine bu mën defar benn matériel ba pare matériel yépp nuroo à 100 pour amul day am rek loo xamante ne ci bëtu nit ki ñii di xool wala yu mel noonu du du du du du du dina wute. loolu kuy seetaan AF kii enquêtes yi dina ko xam épisodes yi kii mën émission yi di di di wax ci enquêtes yi enquête policière yi dina xam loolu dina xam ne amul benn matériel bu nuroog moroomam amul maanaam kon borom subhaanahu wa ta'aala ni mu nekkee witar noonu la def tamit mbindeefam yi comme reflet woom lañ yooyu yëpp witar lañ mais en même temps comme ni mu ko waxee wa min la shay'in xalaqnaa zawjayni la'allakum tatadhakkarun yi amul benn mbir mbir bu nekk yàlla daf koo def mu nekk paire maanaam mu nekk couple walla zawjayn ñu couple yàlla bindul dara loo xamante ne moom noonu rek la def moo tax même nit bi mu ko bindee daf ci bind góor bind ci jigéen voilà courant bi day am plus bi am moins bi même biir atome bi am proton neutron maanaam amul loo xamante ne benn affaire kese kese la yàlla du bindee noonu ànd ak mais ci geneen anam lépp witar la ndax yàlla yuhibbul witar ba pare daf leen bindee ndax reflet bi ngeen di koy refléter kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa bëgg lu tóollanti ko lu tóol lu tóollanti ko bokk looloo tax xoolal même ci sang néew. li mu xadiisu sayyid sayyidat Ummu Atiya bi nekk sunan imam Abu Dawud radiyallahu ta'ala anha bi nekk sunan imam Abu Dawud tam mu ne Zeynab maanaam sayyidat Zeynab alayha salaam ma doomu yent bi saa sallam nee na bi mu génnee àdduna yent bi saa sallam dafa jël yéreem sol ko maanaam yéreem moom yent saa sallam yéreem ci boppam ne sayyidat Zeynab na ngeen ko sang ah, mu ne faxsil liihaa bil maa'i wal kaafuuri wala bil maa'i wa sidra moom mooy diim waj'alna fil axiiri kaafuuran mu ne mu ne faxsiluhaa salaasan aw xamsan aw sab'an aw maa shi'tunna waj'alna fil axiiri kaafuuran sang leen ko ci ñetti njaq wala juróom wala juróom-ñaar wala juróom-ñeent su leen neexee maanaam daal mooy kon na tóol waaye na def ci bu mujj bi kaafuur mooy kanfre fa iza na fa azinnani soo leen paree nag na ngeen ma woo moo tax bañ paree nag ñu woo ko mu doog a sëñ yéreem solol ko ko moo tax li comme li borom wax rahmatullah comme al qaadi Iyaad rahimahullah dafa ne yonent bi boo gisee mu mu mu maanaam simmiwul yére bi ci saa si solal ko ko maanaam simmiwul yére bi ñu ko war a solal en tant que niiw mooy dafa bëggoon en attendant que ñu koy sang barke bi des ci yére bi maanaam barke bi moom yent bi saa saam des ci yére bi bu ko defee moom bu paree rek ñu barke bi gën di di gën a fees ci yére bi ñu ci solal ko ala kulli liñ ci jublu woon rek mooy ne luy day day day tóllanti ko juróom julli yi juróom lañ maanaam lu tóllantiku la et cetera tawaaf kaaba gi juróom-ñaar tawaaf ba ci ràkkaay fukki ràkkaa ak juróom-ñaar dafa tóllantiku voilà maanaam lu tóllantiku moo tax yàlla dafa tóllanti moo tax Euh, bu muy wax tamit kuy lekk tàndarma yi ajwa maanaam juróom-ñaari tàndarma la wax juróom-ñaari tàndarma ah ku ko lekk ah juróom-ñaar benn ah voilà juróom-ñaar la waaw mooy mooy lu tóllantikool mooy mooy impair mu ne jour mu ne jour boobu kenn du ko mën a njabar mooy juróom mooy ju tàndar bi may Madina hmm. boo ci lekk xëyee lekk ci juróom-ñaar jour boobu njabar du la laal xam nga boo xoolee li muy wax ne ba ci ayyaamul biir bi yu ñuy digle yu muy digle ñu ko woor ñetti fan la wax et cetera bari na loo xamante ne maanaam da gis le fait que mbir mi tóllantiku loolu yenn sa xam da koy bàyyi xel même raxas da ngay gis ñetti yoon day wax maanaam moo tax boo xoolee fuqaaw xanaa kii eh, eh, eh, kii Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom raxas juróom-ñaari yoon jur ñoom ñetti yoon lañ koy bàyyi xam ñetti yoon foog nga raxas mbir mi ñetti yoon muy doog a laab bu dee xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom foog nga raxas mbir mi juróom-ñaari yoon ndax xadis bi nga xamante ne moom la yent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam iza walagal kalbu fi ina ahadikum farsiluhu sab'an na ko raxas juróom-ñaari yoon bu xa xaj xamee ci seen ndab maanaam ñoom lépp lu ñuy raxas faw ñu raxas ko juróom-ñaari yoon te bu ñu delloo yëpp da gis ni lépp dafay delluwaat ci lan ci tóol gi moom ci lu tóolante ku bokk kon yàlla dafa tóolante dafa tóolante dafa bëgg lu tóolante mais mu am foofu luñ lu ñuy bàyyi xel ci kii pour ñu mën ko jeexale mooy ne juróom-ñaar mooy mooy mooy mooy quatre vingt dix boo xoolee quatre vingt dix yi euh, peut-être que kon pour dugg balaa ñuy dugg ci ci loolu xam naa kon peut-être que jotaay bii di ñëw parce que am na lu ñu war a leeral foofu tamit ay yeneen kii balaa ñuy dugg ci mais ba jotaay bii moom xam naa ne incha allah mm-hmm. moom danañu danañu pare mm-hmm. eh, introduction bi kii bi jotaay bi di ñëw incha allah kon ñoom foofu mm-hmm. incha allah ba jotaay bi di ñëw ñu mën ñu mën a leeral yeneen yi di aju ci loolu wallahu taala alam